للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد نباني من لم يكن بولدي ولا بوالي المدى بخلدي نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب خلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآله وصحبه والهمدي صلاة ذي الغرس نسيم سمدي اليمن اليسر وغير سددي في خير دير قد أتى بالمدد قرب كل سكر ذي كل أدي المالك المكرم الملتدي فاز سيد بالقرآن مددي نجا بما يديم خير سددي jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñi ngi fii bërëb bu sell bi nga xam ne mooy daaray kaamil jàkkaloo ki nga xamne moy bay Cheikh Diagne mom mi nga xamne bokku na ci ñi nga xamne Serigne Abdoul Mbacke mo leen yorolon bop waye timit fi nga xamne moy bu sel bi mu nekk fi kon serigne bi dañ lay bayyi nga nuyu ak mbokki taalibe yi nga xamne ñi ngi lay bayyi xel balu ak tey bala ak waaw te bëgg wax ay kàddu ci kilifa gi amut lu dul moom waaw war ci sanni ay baat yo xamni ne yi danañu bokk jariñu ci bu soobee Abdul mhm. waaw ñu bëgg rek nga duggal ñu ci li nga xamne ni moy Cheikh abdul Ahad waaw xam nga euh, Cheikh abdul Ahad euh sawar nan ci andi ay jukkoom ak ay jëfam waaye nag bala noo tàmbali damay wax loo xam ni dama koy faral di wax bu ñu ma ciy wax loo bu nekk danaa ko di wax dama leen di wax ni leen euh, ay jukkoom day mooy jukkoy murit saadix mooy jukkoy saalihiina ay jukkoom euh, luñ ko lim lim lim luñ ci wax wax wax kenn ku ci nekk la nga ci wax boo ko xamee it euh, bu ñëpp dajale woon du tax mu mat loolu kon mbir la moo xam ne mii euh, war nañ koo seet war nañ koo euh, xam te damay wax ne nag xam gi ak nu di ko lim di wax ay jukkoom ak ak ay jëfam ay muy jukko yu réy réy yoo xam ne it euh, dama ne li nu ciy jëriñ nag nun dama bëgg nu nu fas yéene di roy jukko yooyu moom la nu xam gi di jëriñ xam ngi dañ koo war di roy ci jukkoom yooyu buñ ko déggee ba nafar ko ba agsi itam dana war a jéem a roy ci jukko yooyu Euh, euh, euh, ndox nu ànd ak moom fii ak fan jëm ndax moom mi nga xam ne day moom lañuy wax ne ay jukkoom mooy jukkoy murid saadiq moom lépp loo li ma li ma ci xam ci moom mooy lépp loo dégg mu di ko wax ci sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu boo ko xoolee da xam ne foofu la teg tànkam moom moom mi ngi koy def soog soog koo wax ñu di ko dégg waaye nu itam li nu li nu ci ñaan yàlla suñu borom dimbali nu ba na mën a ba na mën a roy ci jukkoom yooyee ba ànd ak moom fii ak fanu jëm ndax jukko roy jukko yi dong moom moom la ñuy toppee ci moom moom nag ay jukkoom mm, wax dëgg yàlla euh, rafet na lool te bari na lool ci diir bi mu fi nekk nga xay nekk na fi xay général de Mouride euh, euh, lim doon wax ñëpp nga ko doon dégg. bind na ko bàyyi fi te te lépp itam euh, euh, euh, liggéey sëñ Tuba ak fonk sëñ Tuba ak won nu yoon wi ñuy mën a jëriñoo ci sëñ Tuba moom la doon moom moom la ñu doon diirub li mu fi nekk rek loolu la xamal. jiitu ci itam nag ba nga xam ne bii buñ ko ci toppee dana xam ne liggéey sëñ Tuba ak ak ak dox ci yoon woowu moo do moo nuy jariñ fii moo nuy jëriñ fële. nit nag daf daan wax moom ne sunu borom de. dafa bind yett bind yaar fab yaar jox kenn fab leen jox kenn fab lenn jox kenn suñ boroom tabaaraka wa taala dafa bind malaayika bind nit bind bàyyi ma ñëw fee bind xel ak bànneex boole xel ak bànneex jox nit moo ne ci digg bi mu jël xel képp jox malaayika moo ne ci ndeyjoor mu jël bànneex képp jox bàyyi ma moo ne ci càmmoñ kon nit ki itam bu fekkee bëggee xam euh, euh, euh, suñu borom teraanga bi mu teral doomu aadama ak lim ko defal nga xam ne mboolem bindeef yi mboolem bindeef yi su borom bind nit la ci gën a fonk ndax daraja bi nit am mboolem bindeef yi kenn amu ko ci malaaka amu ko jinne amu ko bàyyi ma waxee noonu daraja bi yonent Yàlla mu sallallahu alayhi am. amul ku ko am kudul nit kon nit mooy li ëpp ginnaaw jëm bi suñu borom ji rek nit moo ci ëpp daraja kon nag nit kooku nag su ko joxee xel jox ko bànneex dafa léegi nag su ne dafa wax ne nag su soppee xelam day day taxaw taxawaayu malaayika fa suñu borom suñu borom mu ne topp xel gi nag taxaw fa taxawaayu malaayika bul ko bul jàpp ne la malaayika man ñu ne mooy bul ko déggee noonu ni koy déggee mooy malaayika yi ñoom suñu borom dafa wax ci alxaan ne ñoom laay sonal laa maamoon wéyee fulal maa yomb ñoom lañ leen digal di dañ koy def lañ leen tere duñ ci laal dara yow saa yoo xam ne topp nga ndigal sa borom bàyyi tere yi rek euh, taxaw nga taxawaay malaayka fa te bu waa yaay kawe malaayka bi ndax malaayka bi moom daa amul woon bànneex yow amoon nga bànneex da nga koo toppul ko deful nag xanaa mel ne ñu ci nga xam fii àdduna lu leen neex def lu leen naqari bàyyi loolu taxawaayu bàyyi ma lay taxaw fa suñu borom. waaw lépp lu ñuy def rek col yi ñuy col wax jeeg jëf jéeg lépp lépp rek lu ci nekk dafa am noo xam ne lii moom la la lislaam may nga defee ko noona bu lee wax nga waxee ko noonu bu lee ak col nga cole ko noonu yi ci yëpp lu ci bokkul ci lool rek euh, euh, euh, moom nag li mu doon jàngal dina ko wax mooy lépp loo xam ne lii lislaam indi na ko rek nam ko islaam indee mu wane nu ko noo xam ne ni kawe na ci sunu njor warati na ak taalibe ndax am ab taalibe moom daa war doon jullit xaqan soo ko solu nag doon doon taalibe nag bu dul bu dul jullit xaqan du mën a doon ab taalibe day doon jullit bu bu wér di fas yéene topp ndigal suñu boobu yi bàyyi tere yi tuub li nga ci defoon soo ko wëlbati nag topp ci Sëñ Tuubaa mi nga xam ne bii moom moo taxaw ci kanam yu lislaam taxaw ci taxawaay yoo xam ne bii kenn mësu ko cee taxaw kenn mësu ko cee taxaw moom nag mu b mu dafa jóg tànkub Sëriñ Tuubaa lam doon def mu di ko def lam doon wax mu di ko wax kon buñ ko toppee loola la ñu xam ne loola loola lan war a def moom lan moo moo moo ñu jëriñ fii moo ñu jëriñ fa ñu moo tax mu daa wax ne euh, ña àndoon Sëriñ Tuubaa de buñ ñu ëppalee ci moom suñu jom moo des ndax moom di digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi nekk na junniy at ak nangam te am na ci yonent bi sallallahu loo xam ne lii ña àndoon ak moom amuñu ko te noonu loolu lépp ci jomam rek la kon bañ a topp kenn bañ a wax kenn bañu a roy kenn ku dul moom waaw doxeen bu nu ko doxee duur bu gàtt rek dana ko daal di yëkki suñu bopp te mooy lañu war ci fii moom lañu war moom lañu mooy may leen bëgg ëllëg fan jëm waaw. waaye kaamil euh, moom. moom itam sëñ Mët Jaañ la ci àndaloon sëñ Mët Jaañ moom moo ci moo ci euh, liggéey ndax téere ba mu ko jëkk a jox muy xuraane bu mat booba sëñ Mët Jaañ bi mu koy tàmbali 1967 la boobu sëñ Fallou ngi fi radiyallahu anhu ba mu tàmbalee téere boobee di ko toppatoo ba mu dem sëñ sëñ ndax dafa jëkk xalaat ne Euh, sambata rasul yi ànd na yonent bi sallallahu alayhi wasallam di seen jëf seen jëf ya laa naw ndax ñoom de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom yun nabi lu muy la du bind du maas moom euh, ñoom nag farlu nañ ci lislaam ba lépp loo xam ne jibril alayhi salaam wax yu na ko ko rek bu leen ko waxee bind nañ ko dara raju ji alxuraan dara raju ci hadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara raju ji te booba ñoom noo leen ëpp xéewal ndax ñoom ay bal lañ daan añeeka reere waaye góorgóorlu nañ ba lislaam dara desul non nak seigne Tuubaa mi nu ànda radiyallaahu anhu fu mu wëlbati ko gis naqli min lawhil al mahfuz mo xay moko ko ci lawhil mahfuz wul bitiko fo wul bitiko gis xattu yi seigne sëñ Tuubaa ba noppi murid yëpp marché ci xasida yi kenn muntu am lépp ne may loolu dal def nañ ko way man defuma ko ngor mu dal di jabu nak fofé wax ne man di fasna yene yéene xasida gépp goo xam ne sama bët bi tegoot na ci bu sobe yàlla dina ko am al bobu dal di koy dugg kérok mu dal di gonte fofu dal dem njaareem fekk fu sëñ Mor Mbay ci mu wax ko ko ma bëgg dajale xasida yi sëñ bi ne ko ah yow li nga ma wax kenn mësuma ko wax waaye nag demal wuti xasida goo amul del si fii ci man mu dem ci sëñ Mad Lamin Jóob Ndagana radiyallaahu anhu ne ko damaa bëgg nga baal ma xuraani xuraani dama ko bëgg sotti sëñ ma Lamin ne ko ah du ma la mën a abal lépp de waaye naa la ci mën a abal ab dog bu àggee ba ba mu àgg eh, nga indi ko ma jox la beneen mu ne ko mees na ko daal di jël boobu dog boobu daal di koy indi jaay jël ay bindkat yoo xam ne dañ koy bindal mu di leen fay. mu jël ñetti kat ku ñu wax sëñ Saliou Ka doomi sëñ Moussa ak sëñ gagne Ba ak ku ñu wax sëñ Abdou Samsam ñu diko bindal mu di len fay ba day booba ag day ba sax ba da tan ag euh, euh, amna yu bari yu ki way lo dañ koy gattal rek legi ba do day ba tan ag nak yalla dogal na sëñ Fallu wacc liggey mom ba mu 1969 la àgg ñaari fan ci wéru kor yi bisub ajjuma mu juggi njaarim ànd ku ñuy wax baay Madou Gueye mu ñëw fekk sëñ bi fii ci kër sëñ Saliou gi foofu sëñ foofu looloo doon kër sëñ daat bi jamono bi muy toog xalifa ñu fekk ko fa daal di mbatu ndànk ba nuyu ko sëñ Baye Madou Gueye mu nuyu ko ne ko sëñ mu jaam yéen bind loolu ab téere mu ne ko bisimilah mu daal di yëkkati téere ba daal di koy jox sëriñ bi fekk de àgganaam ñu bind ko defal ko jëfira defal ko kër defal ko ëmb um, um ko ci malaan sëñ bi daal di malaan mi daal di ubbi jëfira ji téere bi teg ko ci boppam ne karam ne ko xap xàcc xar muy mbindum loxo di xasida sëñ bi daal di ko ràpp ubaat ne laa ilaha illallah ne al nit ñi daal ay dab lañu rek nit ndab nag soo ko duyul xamoo la ca nekk neen daal di koy ne ba rapide daal di jug tifi tifi daal dugg ci biir wax nag euh, euh, bëkk néeg bu ñuy wax goote jang mu ne ko wool ma ñooñu ñu leen mu dugal ñu daal leen ci euh, néeg boppam ñu ñu toog léegi nag loolu nag def sëriñ bi aal bu mag nag mënatu la toog muy wër nag la ilaha illallah mu def ko aal bu mag sama baay ne fi mu toog ab jàlla bi li ko njëkk fekk mu toog mu ñëw yëkkati ko ne mu xëpp ne am addi sëriñ dem dem ba mu yàgg ne maraakis yi mu jullee ji woon ko di dem mu ñëw jur ko ne ko am adi sëriñ Tuubaa ne dem dem dem mu yàgg mu fa ab laaj ko lañ bu mag ñëw ne ko am addi sëriñ Tuubaa dem dem dem mu yàgg ne mu fàpp booli beñe bu mag ñëw ñëw ne ko am addi sëriñ sëñ Modou Diagne nag daan ne ko daan joxe ne ko sëñ Modou Diagne sa liggéey bi sànqal ko cee sedd sëñ bi nag ah man de boo ci xamee ne Modou Diagne laa sax doy na ma. mu ne ah sa liggéey bi sànqal ci sedd sëñ Modou Diagne yëreeti na ngoñ nag daal di ne ko wax loolu. noonu nag ñu daal di tone ci jumaa ji fekk na sëñ bi dafay julli ji àjjuma mu daal ne kon nag baax na ngeen ñëw ma ñaanal leen ngeen dem ba beneen mu ne ko waaw mu daal leen di ñaan ñu daal di génn nee na ñu teg ci ab diir am kilifa gu ko addu soxna soxna soxna may kabir la sëñ bi nag moo war a ñëw di ko taxawu waaye fa oto bi yem ak fa néew ba nekk day soree ba mu wàccee nag wuti foofa nag ñu jàppoo ko loxo ne bu ko kenn nuyu muy dox ci biir nag euh, fi euh, diggante kii nit ñi sama baay fi ma taxaw ci biir nit ñi moo dem ba ba ba di ma romb moom sëñ bi moom ko xam ne moo jàdd ñëw jox ma loxo ñu mën a di ak yi fi àgg na ko foo xam ne yaakaaruma moo leen àgg na ko fi daa nim jëb nag ne kon nag man xam naa lii moom dinaa ci liggéey sëñ Tuubaa ndax dafa naroon def téere boobee képp def ko addi sëñ Tuubaa delluwaat ci am njàngale boobu daara la yor fële ci ginnaaw Mbàkke dëkk bu ñu yaaween mu ne kon nag man lii dinaa ci liggéey sëñ Tuubaa daal di tàmbali nag duggaat réew mi nag fu mu dem ku mu dem ci yow boo ko joxee sa téere xas de bu xoolee xam ne yim ci am xam ne yim ci amut su mu ci bu mu ci amut mu daal di jël bindukaayam daal di koy bind bu ñëwee daal di koy sottiwaat di def noonu di ba wër réew mi booba nag sëriñ bi mu ngi fay ci kër kër gu màggee booba sañcagul kër gu màggam gii mu nekkoon mu kër sañ ci waa ko ba mu nekkee foofu nag nekk fa nekk fa ba mu yàgg nag bu sëñ mu jaañ jógee foofu ñëw siyaare ko ba bis nag mu siyaare ko ne ko man man man sëñ mu jaañ am naa machine mool mu ne ko machine yi li muy mool mu ne alxuraan ak xasida daan nañ yóbbu sëñ mu jaañ ci machine boobu néegu daaru salaam ba ci kër gu màggam moo doon foofu lañ yóbbu machine mool yi yóbbu fa sëñ ma jaañ sëñ ma jaañ nekk ko xool xool ma si bu léegi nag bu ñu liggéey ab téere ba mu àgg ñu jëli ko ci àll ba indi ko mu dajale ko fii ni mu ko daan def topp ko ba mu yem ëpp di yeesul ñu soog ko ñu soog ko relire alaaji sëñ Sàmb nag jëndal sëñ bi ay armoire yu rafet mu def ci néeg boppam lu nopp ci téere yi rek ñu def ko ci armoire yi su boobu néeg feesee ñu sanc beneen bu feesee ñu sanc beneen bu feesee ñu sanc ba mu ba mu lool nag ca la nag soog ne xaa ah, kon nag xam ne daaray kaamil kon mënatu ñàkk mu ne kon nag léegi ah mu ne nag léegi la la boobu nag la tàmbali ndax fii ñu nekk tey daara ji bi ñuy séddale doom yi tamit sëñ Tuubaa ñu wër jumaa ji li kër sëñ Sohaybu bu la woon loolu la am mu ne moom dëkk fi jox ko sëñ Abdou Lahad addiya sëñ Abdou Lahad it daal koy joxaat sëñ Abdou Khadir addiya waaye sëñ Abdou Khadir yem fa mu fa këram yem rek defu ci ñu ñu ñu ñu kii ko. léegi nag bi mu àggsee foofu nag mu daal di yónni ci Sëñ Abdou Khadir ne ko daal kër googu daal maa ko joxoon waaye maa ko laajaat ndax dama fulam lu ma fi bëgg a defee Sëñ moo loolu nag mi ngi tolloog 1975 ñu ngi ko te lettre baa ngi bii la bind bi mu waaj tàmbali Daara Kamil moom la bind sama baay ñu ngi ko Faatihu Sarril Muharram 1975 la mu ne ko yow Serigne Mouhamadou Diagne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nuyu naa la lu bari. sant naa la gërëm naa la ci sa pas ci sëriñ bi nu amul lu dul moom tey ak ëllëg di la yëgal ne dafa am liggéey bu ma nisaral defal borom Touba fii fi Touba Mbacke te doo ko ci def ko te war la koo yëgal war koo yëgal képp ku ko yaakaar loolu moo di kenn umpulewul ne sëriñ bi alxuraan moo doonoon liggéeyam bi ko gënoon a soxal gënoon koo itteel mu nekkoon ca nekkaloo woon ca ku ko soob ngir mu féete ko ci googa wàll moo waral may itam téere yi may mool di ko ko dajaleel fi këram gu mag fii fi këram gu mag gii fi Touba ngir topp ndigalam ak xeñtu mbooram ak sàkku ngërëmam ak sàkkul ko képp ku ma àndal léegi nag téere yi yegg na foofu kër gaa ngi eh, eh, bëgg xat ci moom mooy noonu ma la waxoon ma bëgg ko liggéeyal bërëb bu boppam bu yaa bu rëy bu rafet bu yelloog moom ci kaw loolu sàkkal naa ko daara yi boppam fi penku jumaa ji defar naa palang bi ba teg ko ci loxo yi architecte ba jox na ko entrepreneur bu nu doy ba waxante nañu ci juróom fukki million cinquante millions ci boobu 1975 ba juboo nañu ci mu daal di tàmbali liggéey sartu mu nekk liggéey bu garanti te bokk ak jumaa ji ab atte ci gépp fan ak wépp melo lii mooy li ma ni sat te dogu ci tàmbali ko ci fan yi incha allah war la ko yëgal war ko yëgal képp ku yaakaar Seexul Xadim te nu war a bokk sas ci liggéey bi li yun fokk sonsaan min saadi wa man risqo fa man yunfiq mimma ataahu llaahu laa yukallifu llaahu nafsan illaa maa aataahaa sayaj'alu llaahu ba'da usrin yusran sadaqa llaahu l-aziim wa salaamu aleykum kullukum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuh wa salaamu aleynaa wa alaa ibaadillaahi saalihiin wa salaam Cheikh Abdoul fii Touba boobu leetar la tàmbali bi muy waaj a tàmbali daal di kaamil la ko bindoon sama euh, booba li yem ci béréb bi jëm nii rek moo doonoon lool 50 millions waaye li ci loolu moom ginnaaw bi bi bi njuuke bi liggéey jumaa la ko joxaat ante bu ñuy wax rikkiti moo moo liggéey loola. lii nag bi ñu koy liggéey bi mu ko liggéey ba 1977 la la loolu àgg mu daal di jëlee nag sëñ Modou Diagne ci kër ga ak téere yi ñu ñëw sanc si béréb bi ci 1977. ba 1978 nag la soog a indi machines yi ak liggéeykat yi ci doon liggéey ak ñi ñu liggéey nag di def ci ci béréb bi loolu tax 1977 lañ ko sanc su 75 lañ ko daal 1977 lañ gis pas-pas bi nga xam ne sëñ Abdou Ahad Mbacké liggéey na ko. Mm. Euh, kon bu ñu waxee ci bërëb bu tedd bi nga xam ne mooy daaray kaamil. Mm. lépp ñi nga xam ne que ni ngi fi ñëw di amal ay gëstu. ci mm. yenn mbind mm-hmm. waaw loolu moom ñu ngi koy def waxtu wu nekk ñu ngi fi ñëw xasida yi moom xasida guddi waaye di wut ñu la demal daaray kaamil. gooy wut rek ñu la demal ndax fii xasida yi moom yëpp a ngi fi waaw xasida yi nag moom. fii ku fi ñëw loo ci bëggee laa ci xasida euh, boo ñëwee euh, dañ la ci wax lañ ca ci xam waaw waaw loolu mooy li ma doon wax sànq jikko yi buñ koy wax. bëgg nu di ko roy ak di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko nafar di ko di ko kii ñun nan ko roy nan ko nan nan ko nan ko kii ay jukkoom nag moom mooy jukkoy murid saadix jukkoy murid saadix nag weesuwul imsaaru awaamir wëcc naa mu ne waawi ndax buñ neen nañ roy sëñ Tuubaa nañ roy sëñ euh, sëñ Abdulaat nañ roy sëñ Saaliw ñu leen mënu mënu ñu leen roy mais loolu wax waxam seytaane rek la la sëñ Saaliw waxoon ne loolu bu ñu ko waxee mu ne ñu ne ah kooku mun ko mënoon a roy luñ fiy wut te fekk na euh, roy ko dong la nuy àndeek ñoom ndax yontu yàlla mu salaa salaam sunu borom moo ko bind ba noppi ne ko cëpp ci kanam lislaam melal ko ni nga xam ne la jullit xàqan war a mel nenu nag royu leen ci moom noo ngi roy yontu bi salaam ndax julli gi ngay julli ak koor gi ngay koor ak saak asaka yeeg mboolem ñi ngay def ci lislaam yaa ngi ko roy ci yontu bi salaa salaam kon boo ne munu mun noo roy sëñ Tuubaa loolu pexeb seytaane la roy sëñ Tuubaa weesuwul jëf digal ndax moom de def ne man de jubóo na ci yett jubóog na ma ak nit ñi ci yett jubóog na ma ak sama borom yett yi jubóog sama borom mooy lu ma digal ma def ko lu ma tere ma bàyyi ko lu mu dogal mu neex ma. nit ñi jubóog na ma ak ñoom ci du ma leen tooñ mukk te ku ma ci tooñ ma jéggale te lu ma am bokk ko ñoom waaw loolu moom mooy jukkoom. moo incha allah amiin wëcc naa am def jigali suñu borom yi bàyyi tereem i tuub li nga ci defoon loolu mooy jukkoy murid saadix mooy jullit xaqan ndax loolu ab yonent mënu koo weesu def li nga ci suñu borom digle bàyyi leen te tuub li nga ci defoon loolu ab yonent mënu koo weesu kon nag nan fas yéene topp ndigal suñu borom yi bàyyi tereem yi tuub moom sëñ Abdoulaye loolu dong moo doon ak aw doxinam ndax la daan wax daf daan wax ne euh, lépp loo xam ne lii de boo koy def bañu ku la fa fekk bañu ku ko nettali bañu ku la ko fay loolu jukkoy saali na loolu jukoy saaliina loo xam ne boo koy def ba ñu ku ko fa fekk ba ñu ko ko nettali ba ñu ku ko fay loolu lu ci waay di nekk rek da nga xam ba xam li nga lu lu mat a nekk la wala lu mat la nekk la ki nag euh, mooy li ñu doon wax léegi topp sa xel ak topp sa baneex ñoo fi nag ku topp sa xel moom da daal di xam ne lii sa borom digal ak lim la tere ak bind la bi mu la bind di la melal di la rey di la lépp lu mu lay def kon lim la def diglal sa bopp tax mu digal la ko war nga koo topp. lim lay tere it bañal la lor motax mu téré la ko waaye du ci du wàññi yalla dara lum la tere lu ne sa sa lora lum la digal lu ne sa sa ndariñ kon depp ndigal yi ak bayyi tere yi kenn ko def ku nek sa bop nga ko defal lolu alxuraan wax man amil salian fa li nafsi kon jukkoy Cheikh moy mooy murisade, mourid sadef nan ko top te te te diko diko diko diko nafar diko fatlikonté diko diko diko di te bayi topp bànneex yi rek léegi moom li gën a bari bari mooy topp bànneex yi rek ak rajo ak télévision ak ki bii nga xam ne kenn ku ne loo génn mu gis mu génn ñu ne rajo bi génn télévision ginnaaw ak ñëpp di ci di jëkki te fekk na loolu noonu son yoon nekku ci kilifaa ngi ci suñ kanam goo xam ne gii moom dong lan war a roy waaw ndax ndax dafa daan wax ne julli euh, de baax na lool koor baxna lol sak sarax baxna lol asaka bax lepp baxna na de am kilifa gu mat kilifa mu nek ci sa kanam di jël digel nga di def mu la tere nga bari di bay bàyyi upp solo lepp te kon non def mom seigne touba mom la defoon seigne touba mo doon kilifa nu den ko top top seigne touba lepp lu ñu digel ñu def ko lu teru bayiko and ak mom fi jëm alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatul kharawin أحمله